Petite Action nekk ab projet bu les jeunes volontaires pour l'environnement ngir na la ñoŋal xam-xam ñi nekk ci maire yi ak bépp acteur communautaire ci lépp lu jëm ci saytu ak aar alam bi. boo xoolee élection yi passé maire yu bëri changé na donc ñi doon liggéeyal démb ak ñi ñuy liggéeyal tey daanika bokkul. te ñun euh, mairie yi ñooy suñu bunt ci dëkk yi ñuy dugg di liggéey mënuñu def dara ci dëkk saa ñu jaar ci mairie yi moo tax ñu ne jéem a na nan la ñuy def pour ñëpp xamandoo li xew su ko defee liggéey bi day gën a yomb dimbale suñu bopp mais dimbale leen ñoom aussi te ñoom lu ñu gën a comprendre alam rek daleen di gën a dimbale ci liggéey yi ñuy def. bile projet nag lañ ca bëgg rek mooy ñoŋal lépp lu jëm ci wàllu alama. ci gox goxaat yi. commencé woon nañu liggéey ak ndaw ñi ci yu mel nii ak suñu commission cadre de vie ak environnement donc ñoom ñu ngi doon def ay. journée de sensibilisation donc loolu dañ koy continuer di ko def donc lii ñëw na ci waxtu wi nga xam ni foofu lañ ko soxlaa kon nag bu ñu jógee ci formation yi jàpp naa dinañ ci am njariñ loo xam ni dinañ ko mën a développer ak population bi ngir mën a delluwaat ci li ñuy xaare ci bépp commune yu nekk ci dakaar Dakar Parcelles Assainies ak Yoff projet bi ñeel wàllum alam bi fala nara dooree donc yàgg nañu liggéey commune yi tey commune boo dem am na garab bu ñu fa jëmbat sax ñu Dakar yëpp amul benn commune booy dem ci Dakar te lu jëm ci wàllu formation bi moom commune yëpp la ñuy formé léegi nag am na ci ay projets yu spécifiques yoo xam ne dafa concentré wu ci yenn communes yi te am ñu fa gis yoo xam ne looloo tax ñu dem fa comme ay Yoff comme euh, yenn communes yi nga xam ne vraiment am na ay dégradation soit ci gestion des déchets wala ci euh, érosion côtière wala affaire yooyu noonu jotaayu tey bii nag ñu nar ko wëyal ba suba ci alxamis lu ëpp ñaar fukk ak ñaar ci ay gox-goxaat ñoo ñëw rek teewee bile wax ci bile projet nag lañ ca bëggul rek mooy ay communes yu verte ci biir réew mi ko mën nañ ko tënkee ci article L7 du code de l'environnement nguur gi day garantir ni ku ci nekk war a xam sa ak ki yelleef te amu jàngat gu wóor ci lu ñeel wàllum alam bi